parce que dañu jàpp ni dañoo comprendre train au fait révolution moo leen raw parce que ma ne li xew ni révolution la du politique ñoom affaire dafa leen fi bàyyi ñoom yëguñu ni sénégalais yi changé nañ bu yàgg miette yi ñu leen jox noonu wala xaalis bi ñu leen jox sénégalais yi toppatuñ loolu pour voter sénégalais yi xam nañ léegi lan mooy vote Sonko dafa taal xel yi comprendre baax musique léegi nit ñi dañoo xam ni politique bi amatul ay kii yaay dañuy natt day def ay téeméer téeméer ànd ak ay dara defal koy téeméer ba mu nekk maire defal ko caution mm-hmm. ñu ne par exemple Karim dafa feebar ñu corriger man dañu Karim dafa feebar Ibi Kañot

Barthélemy Dias bu doon moom kese du gagné maire yi benn maire yi ko bu doon moom kese du gagné maire yi Ziguinchor ñun le peuple ñoo leen fal mag Macky Sall ku mu ci laal ñu wàcc ci mbedd bi lijjanti ko jeex na dama la dañoo nekk ci guerre léegi nag guerre boo xam dañ ko bëgg def nga xam dañ naan ay nitu fitna la ñu teg ko ci yoon dem ci urne yi voté sanctionné ko wan ko ba mu xam bu ci bëggee def leneen ñu wàcc ci mbedd bi xeex ak moom te boobaa buy ñibbi moom buy génn palais bi ay tànk may lu gër laa la wax lu leer d'accord d'accord c'est que maa gagné njuluxu njuluxu ñeent nit dafa dëkk benn ja maso ah nga gagné fa ñaari nit di taaral nit ñi am na ñoo xam da ngay sonal sa bopp sonal nit ñi quoi taaral sa bopp da ngay sonal nit